gor gor mooy joxe kàddoom dem munoo toog bis bu nekk nga ni diw sàcc la diw def na lii diw def na lii ba ca vey ba ngay waaj a ñëw nga ni yow lépp yaa ko téye sa loxo heure boo ñëwee ni que tey dàq naa ko dama feebar sama ndigg day metti ay xale ñoo ma tardeel loolu lépp pour indi ay waxi kasaw kasaw yàgg dëgg gatt deug ala kulli al Ousmane Sonko dina seug taxaw andi rapport bi mu wax wala senegal yeen ñep ngeen xam ni kii du waxkatu deug du waxkatu deug sax lay wax parce que bu doon wax deug au moins mu fournir preuve yi mi wax mais fitna lay jema a duñ ko ci top parce que xamnañ ni que fi ñu tollu ni ni mom fitna rek la yaakaar pour mu genné ko ci ñun dañoo am intérêt pour que tribunal wax wax li deug parce que amul lu mi wax duñ ko ci top parce que bëgg nañu réew mi dal duñ ko ci topp parce que bëgg nañ suñuy doom xëy di jàngi duñ ko ci topp parce que gëm nañu yàlla ci ala kulli dëgg mooy am mais maa ngi jël Sénégal yëpp seede ni ko bii mooy ñetteelu yoon loo xam ni tey nga ko sa loxo loo xam ni nee nga nga am nga ko loo xam ni nee nga ay yëfi ñàkk fayda la loo xam ni yow koo wéetal yónnee baalu ma amutul baal parce que nooy saaga ci kaw di yónnee ci suuf di négocier naan ay noo mën naa bind ak bu bindee bëgguma lu mu def bëgguma moom moo ni woon téye na lépp na ñëw ni buqeet rapport bi teg parce que loolu mooy wàllu gor bu ko deful du gor bu ko deful fenkat la